jërë ngeen jëf sunu mbokk internautes yi mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci bawal info point net ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal euh, yéen ñi nga xamante ni tey yéenay commenté li ñuy wax ñoo ngi siy bàyyi xel di leen di jaajëfal ñu bari tamit ñoo ngi aimé li nga xam ne moom la ñuy wax am na ñu bari tamit ñoo ngi koy partagé gis nañ ne ma ngi yaatu euh, ñu bari tamit ñoo ngi abonné ci chaîne YouTube bi di bawal info euh, TV tey nag mbokki dañoo bëgg a ñëw. wax ci ñaari mbir yu gàtt ndax euh, gis ngeen réseaux sociaux yi ñu baree baree bari dégg nañ ko aussi euh, ki nga xam ne mooy Ahmed Aidara di liggéeyee ci groupe de médias Bougane Gueye dani nekk patron waaye Ahmed Aidara dafa taxawal mouvement boppam géejawaay la bokk muy mouvement boo xam ne ba mu ko taxawalee yàgg na mouvement boobu nag dañ si bëgg leeral ne ñoom mosuñoo bokk ci coalition gëm sa bopp Ahmed Aidara moom moo jékk-jékk demal boppam créer mouvement boppam gis coalition Yewwi Askan Wi dem duggal sa boppam comme na sa Bougane Gueye dani duggee ndax euh, ñu bari dañoo jàpp ne Ahmed Aidara ak euh, Géejawaay laa bokk dañoo nekkoon ci coalition gëm sa bopp déedéet Euh, li koy firndeel mooy kero bi ñuy siñee charte coalition Yewwi Askan Wi gis ngeen Bougane signé gis ngeen Ahmed Aydara signé Bougane dafa signé en tant gëm sa bopp Ahmed Aydara signé en tant que Géejawaay la bokk te su doon Ahmed Aydara ci Bougane la bokk coalition gëm sa bopp jour boobu du ngeen ko gis mu signé ndax ñi bokkoon ci coalition gëm sa bopp ñëpp gisoo leen leen kero ñu ñu signé Euh, ma ngi mel ni ñi nga xamante ni tey ay alliés taxawu Sénégal lañ euh, loolu dañ koy bëgg leeral euh, ay dara dafa am tamit loo xam ne moom tim daf ko wane muy fulla ak fayda muy wane ne moom ak Bougane contra professionnel moo leen boole waaye du contrat politique ndax Ahmed Aidara moom dafa gëm ne ñi mën a saafara jafe-jafe askanu senegaal ak ñi mën a wax Macky na ko bàyyi génnal sa xel ci ci troisième mandat mooy coalition Yewwi Askan Wi mbir moom lañ bëggoon a leeral leneen li nga xamante ni dina bëgg nañ koo leeral mooy kii ngeen di gis ci photo bi nii moom mooy Abdoulaye Mamadou Guissé Abdoulaye Mamadou Guissé mii moom mooy moom dafa jiite benn parti politique bu tudd mouvement culturel pour la salut du Sénégal Fulla ak Fayda MCSS moom la jiite moom nag moom parteem moo bokkoon ci coalition gëm sa bopp moo tax keroog ba ñuy signé gisu leen Abdoulaye Mamadou gisee signé ndax Bougane moo signé ci turu ñi nekkoon ci coalition gëm sa bopp ñépp léegi Abdoulaye Mamadou Guissé mi bi Bougane génnee ci coalition Yewwi Askan Wi moom nee na du génn ci Yewwi Askan Wi naam Bougane la fa àndaloon dugg waaye lam fa gis la nga xamante ni tey moom la xalifa Sall wax Ousmane Sonko wax ko PUR wax ko am na ci yaakaar ne ñoom ñoo mën a saafara li nga xam ne mooy jafe-jafey askan wi moo tax moom Abdoulaye Mamadou Guissé nee na dina def kem kàttanam ngir coalition Yewwi Askan Wi gagné collectivité locale commune yu baree baree bari ci élection yi nga xam ne euh, moom la ñu daal di dëgmal moom si coalition Yewwi Askan Wi si la des naa mook Bougane ñoo àndoon dugg fa ndax nee na lam fa gis dal na xel Abdoulaye Mamadou Guissé nag euh, ñaari casquette la amee mais casquette bi casquette politique bi la moo jiite euh, MCSS waaye tamit yéen a ngi dégg tamit kuréel bu ñuy wax OMART OMART di yëngatu ci lu jëm ci wàllum culture wàll woowu tamit. moom mooy njiitul euh, Omart euh, lii lañu waxoon ne euh, dinañu ko leeral ci li nga xamante ni tey moom moo am ci loolu leneen li nga xamante ni tamit bëgg nañ see wax mooy lu soxal marche bi nga xam ne collectif ñoo lànk ñoo bañ dañu ko bëggoon a amal ni ki suba ci ajjuma ji waaye nag dañ leen koo mujj tere collectif bi li taxoon ñu bëgg a mooy dund gi nga xam ne Euh, jafe na metti na cher na njëg yi cher na ba jéggi dayo njëg yi cher na ba jéggi dayo loolu la collectif bi doon marche ñu ne leen du ngeen ko fi marché loolu nag mel ni ma ngi mel ni ñu lay dóor naan la doo ko fi jooye kon mbokk yi ñu leen di sant di leen di gërëm